anjubilaa bisimilah inna wala yàlla asalaamaaleykum axlulaam nuyoo siyaar warma seen doomu nday organe forme jar mu ñëw indi leen suñu la mardi 15 janvier 2019 gros titre nii la demee le PP vivant un nouveau bluff Gaston Mbengue la menace d'un plainte bala après sa victoire sur Modou li ma liggéey xajul ci moom Modou Lo Eumeu Sène une belle affiche Tapha Tine Modou Lo ou Eumeu tout est possible moom mon père avait battu Moussa Diame de la même manière Balla Gaye moo wax loolu noonu waaw waaw ñu par et battu par Balla Gaye 2 Modou Lo reçoit un cadeau royal de Mecène le staff de Rock Énergie confirme la revanche calée en juillet gros titre noonu la demee bu ñu duggee si biir ah troisième pas bi jox ko incha allahu ñu ñëw si troisième page troisième page ah, comme suñu lamb nu mu koy defee saa nekk fenêtre tey ah, ñu ne BGDX la ah ñu ne préparation mystique inédite bu amul fenn buñ mus gis lañ gis si diggante combat Balla Gaye 2 ak Modou Lo bu amul fenn boo xam ne musuñu ko gis ah Moussa Gningue le sorcier de Fass waxoon na ko ñu ne Balla Gaye 2 ñu ne wane na puissance physique ah, puissance physique am wane ko wane waaw ndax wane ko ki nga xam ne Xarañ Lo moom ki nga xam ne moo di Baye waaw ñu ne Aziz Ndiaye ah, moom wane na ay musculam moom Aziz Ndiaye wane na boppam bi nga xam ne Balla Gaye 2 ñu ne wane ay musculam wane doole bi nga xam moom la am moom mi nga xam ne moo di Aziz Ndiaye ñu ne Balla Gaye ah, moom dina dellu fële sa INSEPS ah pour remercier pour delloo njukkal ñi nga xam ne ñooy ay coach am ñu ko entraîné ba mu indi état physique bu doy waar indi doole bu doy waar yan ko ki nga xam ne moo di Modou Xarañ Lo moom ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ñu ne Ada Fass ah waaw doomu Fass bi doomu Médina bi mooy def open press am vendredi moom mi nga xam ne moo war a bëri le 27 ak ki nga xam ne moo di xale yoo fi muy kan caatu ngéwél moom ki nga xam ne moo di Ada Fass waaw ñu ne Vieux Top ah Vieux Top moom mi ngi encouragé ki nga xam ne moo di Modou Xarañ Lo moom Vieux Top bu rek énergie mi ngi koy encouragé ñu ne Balla Gaye 2 ah moom ginaaw bi nga xam ne dafa jàpp Modou Lo ko daan ko moom Balla Gaye 2 dafa dem soirée Wally Seck si guddi gi di fête victoire am bégge fa bégge yu xam ne moo di Balla Gaye 2 ñu ne Modou Lo ah Modou moom moo di Modou Xarañ moo di waaw ñu ne Ibnu Diop Ibnu ah nga xamante moom mooy coach ki ñu ne moom mu ngi doon consolé ki nga xam ne moo di Modou Xarañ Lo doon ko encouragé si ginnaaw bi nga xam ne Balla Gaye 2 na ko damay jógee si li nga xam ne moo di ñëw ci lan quatrième page tey ah comme ni ma la nga waxoon ci titre ñu ne ginnaaw bi nga xam ne ne ki nga xam ne moo di Modou Lo ba pare daan ko Balla Gaye 2 ah ñu ne Modou Lo moom jox nañ ko cadeau cadeau royal lañ ko jox waaw ginnaaw bi nga xam ne Balla Gaye 2 ko moom dañ ko jox kan Eumeu Sène lañ ko indi tegal ko mu war a bëreeg moom waaw waaw moom ki nga moo di Modou Xarañ Lo la war a bëreel waaw waaw waaw waaw noonu la demee noonu la demee xalifa Niang mooy wax président Tay ñi doon wax combat bi taxaw na taxawul Khalifa Niang président Tay mooy wax nee na ñoom signé nañ combat bi depuis deux mois signé nañ ko pour bëre ak Modou Lo juillet ci kattanu suñu borom noonu la ko Khalifa Niang président Tay Shinger waxee waaw information de taille nee na Modou Lo ne leen bi rek ñu fayu ndax ñoom ku leen dóor àll leen yat bi nee leen Modou Lo ne leen bi juillet ñu fayu dóoraat Modou Lo yat bi noonu la ko Khalifa Niang waxee nee na Balla Gaye 2 su bëggee bëri ne dem seeti beneen adversaire ndax ñoom bëriwuñu ak Balla Gaye 2 noonu la ko Khalifa Niang waxee nee na combat bi ah ko depuis deux mois loolu la wax moom ki nga xam moo di Khalifa ba tey ah ñu ne Modou Lo ah, ñu ne choc royal face à Eumeu ñu ne taxaw na ñu ne Modou Lo staff Rock ñoom confirmé nañ ko ñoom nee jot nañ avance war a bëre ki nga xamante moo di Modou Xarañ Lo euh, euh, bëre bi nga xamante ne nii Balla Gaye de daan na ko ñoom juillet lañ war a bëre ak ki ne moo di waaye nag combat noonu ah dafa am wax waaw parce que nee ñi naan ci suuf waa ñoom ñoo ko taxaw waa Escaf ñoo ko taxawal taxawuñ ko président Escaf mooy wax président Escaf moom nee na ñoom combat boobu taxawuñ ci laale wuñ ci ñoom seen yoon nekk si combat moo di combat ñoom waa Escaf damay ñëw gis ko noonu ah image le 13 janvier fële si ko noonu ah gars yi nekk si nekk si tuus bi nekk si préparation musique bi supporter ya ah musique bi ngeen gis ko ah Balla Gaye 2 Modou ngeen gis mu nekk image yu inédit yu am solo waaw ci diggante combat ki nga xam ne mooy dox ci diggante combat Balla Gaye 2 ak Modou bi amoon fële sa stade Léopold Senghor damay ñëw ci sixième page sixième page comme ni ma la nga waxoon ci titre yi ñu ne ginnaaw bi nga xam ne deuxième fois di indi ah, na beneen problème beneen buluf la indi si li nga xam moo di làmb bi parce que bi mooy deuxième fois ñi indi PPV PPV ah ci combat arène fii Sénégal mais doxul ba tey loolu noonu ah ñu ne ginnaaw bi nga xam ne capotage Gaston ah mi ngi si menace lan menace plainte nee na kat dañuy war a waaj a plainte ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue moom muy promoteur combat bi indi initiative PPV moom ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue Leewtoo laay ñëw ah damay def sixième page si ah, septième page septième page moo fa ne waaw waaw septième page Balla Gaye 2 moo fa nekk de comme ni mu la ko waxoon ci rek ñu ne ginnaaw bi nga xam ne Balla daan ki nga xam ne moo di Modou Lo nee moom dafa ñëw moom Balla Gaye dafa ñëw xeex pour wan pour wan adduna bi ne moom dafa mën a xeex moom xeexkat la moom puncheur la moom Balla Gaye parce que ñëpp dañ ko jiñ bërekat te xamuñ ne moom xeexkat hors pair la moom ki nga xamante moo di Balla waaw waaw nee moom li liggéey moom Balla Gaye 2 xajul ci Modou xarañ Lo déedéet xajul ci moom déedéet xajul ci moom nee na Modou Lo ama seen tamit combat bu neex la ah combat affiche bu neexal neexal neex la waaw nee ama seen yooyu yëpp nee na possible na nee na lamb yooyu noonu yëpp possible na te lamb yu neexal neexal nee na moom papaam ni mu daanee Modou Lo papaam daanee woon na ko Moussa Diame waaw daanee woon na ko Moussa Diame dafa mel ni photocopie rek noonu la ko Balla Gaye waxee moom Balla Gaye 2 nee na après combat mook Gris Bordeaux nee na monde lamb adduna Sénégal ñëpp jàppoon nañ ne Balla Gaye 2 dootul daanati mbër ndax mënatul baaxaat moom Balla Gaye 2 nee na mu liggéey ñëw indi état indi doole daan ki nga moo di moo di moom Balla Gaye la ko waxee bu dee wàllu wax na si nee na moom mystique bi ah daf ci dem carrément daf ci dem à cent pour cent parce que amul benn benn lenn lu mu ci bàyyi parce que waru woon perte combat am la parce que diggante moom Modou Lo waru woon perte combat am moo tax wàllu musique bi caaxaane wu ko woon benn yoon moom Balla Gaye 2 waaw nee na moom Balla Gaye 2 moom mooy be seul mbër bi nga xamante ne xeexkat yi mu dajeel yëpp da leen duuma daan leen ci làmb ji moom Balla Gaye 2 nee na moom Balla Gaye 2 xeexkat yi mu dajeel yëpp ah daf leen duuma daan leen ci làmb ji waaw ku ci mel ni Tapha ku ci mel ni Gris Bordeaux ku ci mel ni Modou Xarañ Lo ñoo ñëpp ay xeexkat hors pair lañ te Balla Gaye dafa daje ñoom duma leen daan leen moom Balla Gaye 2 noonu la ko waxee waaw. moom Balla wax na ci Tapha ah, wax na ci Tapha Gueye nee na moom papaam moo jàngal ñu jàngal Tapha Gueye bëre moom papaam ci la bokk kon tey jii yanu na maanaam ñëw jàppale ko ci combat waaw noonu la ko waxee ah moom Balla Gaye noonu la ko waxee ci li nga xam ne moo di ci Tapha Gueye damay ñëw ci huitième page bi tëjee ko foofu waaw huitième page bi point de vue la suñu lamb indi ah moom moom suñu lamb point de vue point de vue nee na ginnaaw bi nga xam ne Modou Modou Xarañ Lo moom génie la génie mais ñi ko entouré nee na amul koo xam ne ne nga am nga expérience ci làmb bu ko entouré ay xale rek ñoo ko wër moom moom Modou Xarañ Lo te te te génie ah. ah, moo di Modou Xarañ Lo gisuñu si benn mag bu nekk si moo di Modou Xarañ Lo noonu la ko suñu làmb ëndee si ñu ne ginnaaw bi nga xamante ne moom Modou Xarañ Lo Balla Gaye na ko nee na dina dajak presse bi mardi mardi bii waaw wow moom Modou Xarañ Lo dina daje presse wax li nga xamante ni moom moo ko ñàkkaloo ci combat am diggante moo ki xamante moo di Balla Gaye 2 waaw damay ñëw tëjee ko ak jalgati lamb comme ni ñu koy defee jalgati lamb tey kan moo fa ne BG2 le lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 moo fa ne waaw wow ngeen gis ko noonu ah, mu yanu mbaalam mbaalam dugal ci kan dugal ci Modou Lo dugal ci Modou Lo 2019 moom Balla Gaye 2 mooy mu ne mu ne mu ne ko Modou Lo ñaata ñaata ah 2 ñaata ñaata Modou Lo Modou di ko tontu mu ne ko 2-0 Balla Gaye 2 ah yaa ma mën noonu la ko Modou Lo tontoo mu ne ko 2-0 la yaa ma mën yow Balla Gaye 2 noonu la ko Modou Lo tontoo si jalgati lam bi gaa looloo nekkoon suñu lam waaye loolu ci mën di dëgg loolu ci mën di dëgg fils de Balla école de lutte Balla Leer bool mbooloo kooku lamb la